jërë ngeen jëf mbokki internet suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seeni seen wàccuwaay ñu àddu ci xibaar bu yees ñel nag ki nga xam ne mooy Jérôme Bandiaky gannaaw ko ne bi nga xamante ni daal nañ koy teg loxo moom nag ni ki démb élément yi division des investigations criminelles daal di woon nañ ko jëlee foofule ci diwaanu Dakar ñu yóbbu ko ci këram bi nga xamante ni moo nekk foofule ci Mbour bu ñu doon fuyee boobule këram bi nga xamante ni rek moo féetee ci Mbour bu ñu sukkandikoo nag ci libération bi nga xamante ni moo daal di fésal boobu lee xibaar mu ngay xam le ni kon jamono ji lee ñoo ngay daal di développé ñel ci mbirum ki nga xam ne mooy Jérôme Bandiaky ginnaaw kon bi nga xamante ni daal nañ ko impliqué li jëm nag ci mbirum ki nga xamante ni mooy Didier Badji ak ki nga xam ne mooy Fulbert Sambou ci naka noonu itamit li jëm nag ci mbirum nervi yi nga xamante ni rek ñu ko doon recruter ci compte bu APR ba taxoon nag ñu daal woon koo teg loxo le quotidien moom mu ngay xam le ni rek laata ñu ko yóbbu foofu lee ca diwaanu Mbour daal woon nañ ko yóbbu nag ci appartement bi nga xamante ni a fuyee boobule kër ba tax nag yi nga xamante ni rek moom lañ koy toppee jamono jëlee leneen na li jëm ci mbirum xibaar bokk na ci conseil interministériel bi nga xamante ni moom premier ministre di Ousmane Sonko moo ko jiite woon ni démb moom nag ci boobule conseil nag daj nañ ci jël ay mesures bu ñu sukkandikoo nag ci les échos moom nag mu ngay xam leen moom Ousmane Sonko daj nay dellu gannaaw kàddu yi na mu muuru kol ci yenn école yi nga xamante ni rek dañ koy tere ba euh, yi nga xamante ni rek dañuy tere xale yi ñu muuru ci yooyu la école moom Ousmane Sonko nag dañ ba tax nag moo xam leen nag yooyu la di appliquer li nga xamante ni rek loolee la sénégalais yu bëgg ba tax nag le quotidien ngay xam ne ni ministre de l' éducation moom nag dina daal di fésal ak coupe alerte boo xam ne ci réew mi benn école dootul amati sañ-sañ di tere xale yi di muuru ci école yi loole nekk ñu daal di ko jël ci boobu la réunion interministérielle bi nga xamante ni niki bu ci jeudi 19 septembre bi lee lañ ko doon amal ci njiitalu premier ministre di Ousmane Sonko mu daal di xamle ni kon état bu Sénégal dafa war a veiller waaye tamit à éradiquer toute forme de discrimination